salaamaaleykum suñu mbokk internetu Feeling Dakar. Euh, concert casserole bi mais fii am na ñi nga xamante ni dañ doon génn euh, di commencé def li nga xamante ni mooy comme ni ñu koy waxee euh, concert bi ñu faree ñi nga xamante ni ñooy ci wàllu ci wàllu opposition bi ñi nga xam ne ñooy jàngee fi université yi ñoo doon génn def loolu mais ñu def du xool rek ñoom buñ mënee am suñu réaction ñu laaj leen ñoom ni ñu gisee loolu. ñu ngi delloo ziar bu wér. xanaa yaa ngi wàcc euh, euh, concert casserole bi nga xamante ne Ousmane Sonko nee na à partir de vingt heures tey euh, ba vingt heures dix na ku ne taxaw yor boolam di tëgg wala bu fekkee moto nga yor ngay corne oto yooyu loolu en tant que sénégalais ban gis-gis nga ci ah xanaa dëkk bi nu mu méttee rek xam nga wax dëgg yàlla Sonko bu doon ay waxam sax bu doon ay waxam sax ñun gisuñu ko ñu mën a wax waaye méttitu dëkk bi. xëy na tax na moom am nañ si yaakaar ne mën nañu delloo fu ñuy fu yaakaar nekkoon ci Ablaye Wade ndax bu dee wàllum tëgg moo mën a tax nit ñu dégg ñu ah neen ko sabar ut ko tëgg ut ko wañ ut ko cin ngir dëkk bi mën ñu mën a yëg ne metti na. yow d'accord nga ci Ousmane nen def leneen lu dul tëgg Ousmane bu ne nen dem Île des Serpents dañuy dem Île des bu ne jàpp waaw bu ne nen dem Île de dañuy dem Île Saloum ngir tëgg parce que gis na fi réew mi toll nii dund seer na lekk seer na naan facture ndox facture courant taux de chômage ñun booy koo si gis gars yi seen loxo sax eggul seen seen dënn boo muy egg seen poche est-ce que yaa léegi nag comme que tëgg comme que tëgg wañ bi nii tëgg wañ bi dina xaw a def écho ndax ñun xam nga ambiance li ñuy dund. mais grand boobu muy xaw a def est-ce dina xaw a ah, laal dara ci Macky Sall est-ce que Macky Sall mooy yem rabu Macky Sall tëgg lay bañ. nga ne rabu Macky Sall. bañ tëgg wañ. loolu ñu ngi ko jëlee côté Malifara sëriñu Malifara bi mi ngi koy wax ne tëgg leen boo leen tëgg muy daw génn réew mi mooy faa yu bëri di feeñ waaye ñu tëgg bu ñu tëggee ngis Macky Sall du du yàpp du. aussi naka nga gisee yeneen sénégalais yi ah? ñoom ni ñu ko gisee nee vingt heures heure boobu am ñu feebar ci koñ bi nit ñi di tëgg yow en tant que sénégalais nag. dama ne la suñuy milliards ay ay ay ay ay suñuy milliards ay football lañ ko def defuñu ko hôpital kon tëgg bi bu mu rey nit ñi da gis hôpital boo feebaree man ni nga may gisee ne damaa accidenté kenn jëluma hôpital bi ngay dégg nii ñu naan ay affaire tëgg dee feebar loo nit ñi. feebar maam ñi ñi nga xamante ne ñoo feebar nekk ci kër gi. mu ne ñi feebar ne si kër gi dee moo leen teree egg yow mal xiyaam mais ñëpp a feebar yow mi yor sa micro yàlla moo ma tiim da ngaa feebar wax ji moo fi ne yow da feebar gisa nga xam lu ta tëgg bi jot tëgg bi wax dëgg neex yàlla on est fin. waxuma on a fin on est <laughs> on est fin dëkk bi doxatul boo yaa ngi rayante seen biir ngir xool lu ñu lekk lu ñu naan Macky Sall xam nga tey fan la doon muusee ba Sonko di wax mu wàññi dund bi semaine bi stop ne eh wàññi naa dund bi wàññi naa diwlin wàññi naa nii xolal sénégalais dañ koy dimbali ànd ak moom. su ma déggee yéen daal ah, ma ma wàllu xiif gi daal moom moo moom moo tax yéen. mais boo déggee ñu naan population mondiale. famine la xiif dëkk bu am lekk am naan xaaju problème wàññeeku na mais bu ñu demee ba toll si dëkk boo xam ne faa lekk boo ñaanul nit wala nga dem xool lu ñaaw loo def wala leneen ñi nga am doo gis du ñu publier statut doo gis Facebook doo leen gis Instagram ñi ngi seen lanu toog yor seen cheque ak seen compte ak seen manette ñun pauvres yi nga gis ñu am sax benn saafara naan non journée validée imagine toi ñun pauvre buñ ñu demee ba benn journée. buñ si lekkee naan dañ koy essayé pour wax journée validée nga xam ne le pays va mal wax dëgg yàlla xam ne le pays va mal car nag ay cin la ma la rek sëriñ ba nekkoon fële Malifara Casamance moo sant Sonko neen fëgg cin parce que Macky Sall tukulër la saraxu tukulër cin lay bañ. gannaaw fa nga déggee loolu. Malifara Casamance. am nga fit de ku la bàyyi nga loolu. ñu ngi Sonko laa lay wax Malifara Casamance ñi ngeen ma Sonko nee neen ko kon kon kon kon kon magi ci biti kon kon kon kon kon magi ci biti waaw en tant que dama newoon sa genre affaire yi du ci fara di wax quoi mais affaire nag mu ngi bëgg a ëpp ko quoi wax dëgg fa yàlla ñun ay nit lañ quoi duñu ay mala doo nekk feere ñu naan ay def leen lii def leen ay nit di dee comprends nga ay bakkanu jàmbur di dem comprends nga ngay gën a continuer di defee man Sonko damay mujj laaj nag moom nag nit la wala lan la comprendre nga mu la parce que mënoo di woote ay nit di dee comprendre nga ngay gën a woote te jii lu mu woote nii mu ngi mu ngi mu ngi waxaat leneen am na lu muy waajal xaw ma kañ waaw mën nañu dimbale te yàlla tax ñun fii fu nekk nii citoyen sénégalais ñu ngi wàññeeku ngir Sonko yaa may dégg man li muy def ni ànduma ci Sonko daal man li muy def ni ma ci ñun en tant que Fass waa fii doo fi dégg dara fii Fass fii ñu ñoo fi nekk nekk ay jeune nekk ay boy ñun ci li muy dox ni ñun doxuñ ci yaakaar ni moom li muy def nii pour xeexal euh, li nga xamante ne mooy population bi la euh, parce que nee na euh, day bëgg a def ay manifestation du ko ko may est ce nekkul tamit looloo tax mu ne bu vingt jotee ba ba vingt heures dix ñu ñu ñu waaw yaa mais yëngal bii lu muy yëngali Sonko lu muy bëgg a yëngalee du noonu comprends nga mu na indiwaat beneen beneen façon politique mais a indi nii moom ñun ànduñ ci. bu dëgg fa yàlla mënoo politique nit ñi di dee nga bëgg xam nga lan la xanaa day sacrifier nit ñi lan ñun ànduñu ak moom ñun. Macky Sall suñu président la am nañ droit de respecter ko bu war a dem bu waree dem day dem Sonko bu na na ñaan jël nguur gi ci jàmm moo gën yii muy def ni yii muy def nii moon ñun Fass Fass doo fi dégg dara Fass ñun taluñu loolu sax dañu am combat muy aar Fass moom lañ tal waaw kon mais grand loolu ñëpp ñu ngi koy waajal yéen ngeen waa Fass ngeen ñun waa Fass bokkuñ ci de affaire affaire yi affaire ñàkk ñu newuñ ci leer laa la wax ñun affaire tapet yi newuñ ñun fii dafa am dafa am ñun dañu am ay réalité d fii Fass fii yëfu caaxaan ma ci nga yaakaar ni Ousmane Sonko day toog nga xamante ne mooy population. nga yaakaar ni euh, loolu ñu muy déranger ci koñ bi wala. mais mais sa façon de parler boo xoolee di nga xam ne kii nii dafa dafa yab munoo toog sa bureau naan à part de vingt na sénégalais yëpp génn comprendre ku yor yor sa bool di tàccu ñun dañoo am jot boobu amuñu jot boobu. keroog yéen a ngi gis benn image Franck Landeli Sonko ay doomam dugal nañ ci karkat bu baax ñu dem jàngi léegi doomu jàmbur yi ñooy dem di deewi loolu c'est pas normal autorités yi dañuy jël seen doom yi teg leen ci ayam bonne santé ñun doomu yi ñun xam nga ñun ay doomu raam lañ ñun ñun lañ jàppee ay doomu raam ah mais ñun duñu dina leen wan nag ñun duñu ay doomu waaw. fi nga waxee noonu foofu laay dikkee ak yow parce que gis nañ jamono ji violence bi ray bi ak xale yi nga xamante ni ñu leen enlever mu nekk coow même bu ñu xoolee euh, ci côté boobu ñoom dafa mel ni yëguñu loolu quoi. dégguma la nga wax bu baax waxatal bu baax ma dégg. <laughs> moo ne comme eh, ni nga ko gisee ni nga waxee foofu laa ñëwee. Mhm. maanaam violence bi xew léegi. Mhm. rey yeeg ak xale yi nga xamante ne dañ leen di jël di leen yóbbu. Mhm. mu mel ni ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi ah, ci wàllu politique ñoom ni yëguñu loolu ci benn côté. ñoom ñoom ñoom loolu da lay seen sacrifice la ñoom dañuy sacrifier nit ñi am nga nguur pour nga yor ko faa nga gëm sacrifice dëgg affaire dëmm la ñoom ñooy sacrifier nit ñi ñoom ñooy ñooy ñooy sàcc yi def lépp instant yi fu mu nekk nii ñoom ñooy xalal sàcc yi ñu ñëw di di daj magasin jàmbur yi politiciens yi la. sa gis-gis looloo am du sama gis-gis de loolu moo am parce ñun fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ defee lépp xam nañ ko. kon da nga jàpp ne tax ñoom ba léegi déggoo kenn ku génn euh, sànni message ci li nga xamante ne moom mooy xew ray beeg ak xale yi. ray beeg ñoom duñ ci wax du ñu pardon duñ def dara ku ñëw naan ay ñii dee maa ngi jégg xam nga lan la ñuy def ñii dee maa ngi maa ngi jaale seen mbokk lu dafa am njëriñ yow nga woote nit dee ah dama nga dekkil ko yaa may dégg waaw nga dem dekkil ko moo gën ngay naan naan ay néeg nii ngeen dëkk bi dafa dafa dafa dafa fii nii dafa a changer ay ay yi boo demee bitim réew gaa ni ñuy manifester ak fii ni ñuy manifester du benn fee boo demee gars yi xoolal poliment li ñuy manifester dem def li ñuy def mais fii nii manifestation demal nga xeex yi demal nga rey doomu jàmm loolu du yow naa ko rek voilà xaar mu sola sama yéen citoyen la citoyen Macky Sall Macky Sall non doomu Sonko dafa ñu dara léegi yow lan nga wax yow yow léegi yow lan nga lu ma wax. mooy Sonko warul teg ay doomam ci ay bonne santé. ah jël ay doomu jàmm da leen xeexloo. yéen xeexloo yow nga ne ko. léegi man ma ne d' accord ma ci loolu xam nga d' accord ma ci loolu Sonko la fait moom ay doomam di jàngi loolu loolu droit la loolu jotawul dara ak manifestation ak dara comprendre nga comme kantaan nag doomam dugg ci oto ñun doomu baadoole comme xale bi nu mu ko waxee. ñu dañuy dox non non non non non Sonko boo xoolee mettre na doomam ak ñun au même pied d'égalité parce que ñu ngi si même pays yaa ngi comprendre léegi nag man li ma mën a wax mooy Sonko boo xoolee xeexul pour cent francs pour moom. Sonko traîné wul. waaw mais dafa nag parce que tey doomu Sonko. waaw dafa nag xam nga doomu Sonko bu doon traîné bu lu tax lu tax mi ngi traîné bu traîné wul woon ni gars yi Macky Sall ah ak gars yi ngay dégg premier ministre seen doom xam fu ñu ne diggante Canada États-Unis France Sonko doomam mi ngi fii waa déglu ma si la rek. Sonko doomam mi ngi fii. dara lu muy wax nii dara leeru ko ci. Ah, mais ah, xalaatam rek lay wax ah, tamit. ma ne xalaatam rek la mën a wax nii lu mu xalaat du simple mais lu ma lay wax nii kii politique deful dara mais man. man dëkk bi dëkk bi dëkk bi ma wax la lu leer damay tëj damay dem sama yoon man du ma du ma polémique lu leer laa lay wax lu ma lay wax nii lu leer la Sonko ay doomam ñu ngi jàng ci école yu baax léegi doomu jàmbur yi amul moyen di jàng école privée ñooy dem seen école daw jàng dem grève ji qu'on se dise la jàmbur yi dee nii du ay boos dee ah fa laay tëjee léegi mun naa eggale waaw waaw kii dëkkul Fass maintenant la dëkk. ah kay eh. eh. ah kii dafa mën dëkk Fass kii Arafas mu koy xam nga Aada Fass jamono dafa dafa dëkk bi. waaw dëkkul Fass maintenant la dëkk man maa dëkk faa juddoo Fass yoroo Fass man la Zap TV doo mu dëkk bi. yaa may dégg lu ma la wax daxal téere. waaw non déglu fii kenn fi tëgg ku fi tëgg. Eh, waaw déglu moom bu tëggee ma defal ko ba waa waaw ma ma wax la ñaar waa kaay ma la ñaar moom nee na man maintenant laa dëkk man ma wax la sama papa mi tur Adama Soumaré léegi ngay seen titre foncier la fi am fii laa jongoo fii laa juddoo fii lañ ma ngéntee en 93. Eh, man daa waliyansi man 89 laa moom 89 waaw dama la ah. man sama titre fo waaw déglu ma waaw non non non non dama ne dama ne dañuy waxtaan moom doom moom njaago la man njaago laa comprendre nga parce que li mu wax nii xam nga lu tax ma koy souligner